te doom dafa war a am kilifa te wax nañ ma ne yoon waa ngi nii président mat de l'homme des social kenn du ko tëkkale kon nag samay kàddu du bari waa Touba saw waa Daaru Muyin waa Ndaaru Nguy waa Eede waa Nguray waa Njoñik waa Daaru Salaam Lewe waa Nesawna waa Jawe waa Mure ñëpp amat lañ avertir waaw lii nag na ko président dégg Macky Sall na ko dégg gëmuñu Macky Sall monsieur Amath Diop la ñu gëm ndax moom lañ gis suñu wax na leer histoire day bind histoire day bind tey première village bu ñu taxaw far candidat jag sax la tey première fois ni ngeen vérifié yéen journaliste yi taxaw tey la ma sa am kon amat samay kàddu du bëri maa ngi remercier tout le monde bisub tey bii bis bu bu ma marqué la ndax temps bi nga xam ne askan wi jël nañ ko tey ba heure bii di toog ci mitin bu mel nii ci occasion bu mel nii yaakaar naa ne pour la première fois ni ko Bàcc Diop waxee sànq ci kolo ci kolobaan lu mel nii moom fi fiy door a am kon dañu ciy sant yàlla bu baax di ci sant képp koo xam ne déplacé wu na fi waaye di jaarale sant googu nag ci jàmbaar ji nga xam ne mooy le lion di département di Bàcc Diop Diacksao yóbbu na turu Diacksao fu sori Bàcc Diacksao Jaksaaw ak waa Ngurey ñoo am initiative bii tey wooñu ne dañoo am tey mébét boo xam ne il faut ñu fësal ko fësal ko waa Colobane fësal ko département bi fësal ko président de la république fësal ko képp koo xam ne yaa ngi ci Sénégal te développement am soxal la mooy dinañu fësal kan mooy seen candidat samp leen tey muy seen candidat ñu am initiative boobu it boole ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ngi leen wër mu doon une surprise boo xam ne tey jii nii kawe na kor trop sama njort ba tax na it nag nangul naa leen investissement boobu ngeen ma investir tey ci mairie Colobane incha allah pour 2022 lii dafa am solo ndax politique dafa soppeeku te ñun ba ñu duggee ci politique ba léegi ni ko askan wi di waxee xamee ko ñu di koy waxee fu ñu nekk dëgg moom lañ ciy dox dëgg moom lañ ciy jëfee te loolu it la ñu bëgg incha allah muy wër di continuer ñu ànd ci ak ay góor ànd ci ak une équipe excellente équipe boo xam ne yeneen i ingénieur ñoo ngi ci suñu ginnaaw yeneen i docteur ngi ci suñu ginnaaw ay baykat a ngi ci suñu ginnaaw ay jigéen a ngi ci suñu ginnaaw ay ndaw a ngi ci suñu ginnaaw ay baykat a ngi ci suñu ginnaaw ak euh, kii sàmmkat ak euh, ouvrier bu ci nekk façon corps de métier bu nekk taxaw nañ ci ak chauffeur yi ñi ngi taxaw ci suñu ginnaaw ànd ak ñun pour suqali kolobaan pour soppi visage yu Colobane te politique dafa soppeeku lii nii dafa wane ne aujourd'hui la politique nit ñi ñoo koy teniral seen bopp ci seen loxo te politique base la kon képp ñi nga xam ne am nañ base doon yaakaaru gox bi nañu leen bàyyi ñu continuer nekk ay candidat bu ñu fekkee président de la république dafa bëgg a fii ci kolobaan waa Ngurey ak waa Jaksaaw wane nañ tey seen bopp te dafa am programme boo xam ne moom lañ ñu lu waa dëkk bi teg ne ñu def li nga xam ne mooy investir Kolo Amar Diop ci mairie Colobane tey jagsaaw la fii ak waa Ngurey mais le 9 incha allahu Colobane la yeneen i dëkk aussi programmé nañ pour yeneen i pour yeneen i meeting yu mel nii yeneen i investiture loolu pour xamal askan wi kan mooy seen candidat te loolu fit la engagement la boo xam ne waa gox bi ñoo ko wane ñun nangul leen ko loolu nag engagement yi bi ñu ciy ànd ak ñoom pour fexe ba soppi dundu doomu kolobaan mu mën a soppeeku ba ëllëg nii doomu taax bi di yëgee mën a ja jàngi dem jàngi war a jàngi jàngi am dëkk ci dëkkuwaay bu sell mën a faju te doo sonn jigéen ñi mën a liggéey mën a euh, di euh, am des conditions de vie yoo xam ne dinañ ci man di yor seen njaboot te duñu am benn jafe-jafe mën a am électrification bu normal courant nekk fépp ndox mi di baawaan fépp baykat yi di bay sàmmkat yi di sàmm loolu la ñu yéene te incha allah loolu la ñu engagé wu pour ànd ak waa Colobane ci élection yi ñu jublu dama jàpp ne man la ñuy investir parce que ñiy investir ñuy gagné lañ bëgg te man maay gagné. kon beneen beneen choix beneen choix fii ci Colobane bu ñu wax luñ ñu fi wax lu dul ay lobbying. nañuy wax président de la république dëgg li nga xam ne moo fi nekk mbir mi dafa soppeeku gis nga lawoon woon ni na tey fii nii ñun ñii ñoo fi nekk dañuy tàllal loxo nag waa Colobane yëpp dañuy tàllal loxo suñu mbokk yi Benno Bokk Yaakaar yëpp toute sensibilité confondue ak suñu mbokk yeneen ñi nekk ci parti yëpp ci gox yi nga xam ne li leen ñor li leen soxal mooy lu suqali seen gox te ñun ci loolu la ñuy taxaw ndax dañoo njëkk taxaw di faj ci à travers euh, liggéeyu nguur gi à travers le conseil départemental bi nga xam ne sama frère Adama jàll moo ko jiite à travers suñuy relation personnelle di satisfaire besoin yu population bi luy soxla ñu taxaw ci ñu dem uti ko am lu ñu ci am ba wan leen kon loolu population bi moom la ñu soxla te façon politique boobu la ñu soxla léegi te ci loolu ci la ñu nekk président de la république it loolu la soxla ñoo ngi ci kon pourquoi ñu war a mën a xalaat leneen leneen li ñuy xalaat mooy incha allahu nangul nañu waa Ngorey ak waa Jaksaaw candidature boobu di xamalit président de la république Mohamed Boun Abdallah Dionne notre frère li nga xam ne moo nekk fii ci Colobane mooy amaat Diop candidat la ci mairie wu loolu nag loolu nag comme ni ma ko waxee euh, feccun liir bu neexee ndey ya moo tey ca wagg ya politique bu amee base moo tax population bii la ñu ñu yëngatu ñëpp pour lu satisfaire population bii la kon bu population bi taxawee ne yow la yow la yow la ñu nit dañuy taxaw lu ne ñun la loolu daal moo doonoon kàddu yi ñuy sant ñëpp di santaat bu baax sama frère Bàcc Diop ndax wax dëgg yàlla mitin bii nii moom moo toog ak ay mbokkam moom moo toog ak waa Ngureye xalaat ko yaatal ko ba tey ñu agsi fii kon bu ñëwee ba tey fii nii te mu dégg lu ne nag di gis lu ne wax nañ ko léegi mu doon lu métti nag may waat nag waa Colobane ñu xippi seeni bët xool ndax aujourd'hui politique fii ci kolobaan jafe na fi lool ndax ñun dañuy dem di uti di indi lii ñëw jëlee ko fenn lu dul ci ministères yi ci projet yi ci programme yi ak ci conseil départemental ba ñu nekk foofu la ñu koy jëlee ak suñuy relation suñuy am di jàmm yi nga xam ne xam nañ leen ñuy nekk di liggéey ci développement ñuy ñëw ñuy jàppale di indi ci Colobane indi nañ fi électrification rurale ñu xajamal ñii di ñii di mbubboo leneen ñii di woote indi nañ fi con sant euh, socio collectif à Colobane à travers l'AGETIP ñuy ñii di euh, xajamal ñii di saboté indi nañ fi euh, des toilettes avec ONAS ñi ngi fi liggéey ndax les programmes de l'État du jékki-jékki rek tombé comme ça parce que lu ñëpp soxla la mais lu ñëpp soxla ña gën a farlu gën a gën caa dox gën a wane seen bëgg-bëgg ñooñu la ko état bi jox parce que lépp matandoowut ci un coup d'un trait lii mujjee mujjee mujjee nii mooy bëggoon naa ci wax mooy le FERA programme FERA nga xam ne aujourd'hui l'administrateur des fonds du FERA di liggéey ci communes yi di jàppale ci communes yi ñun ñu jóg dem gis ko waxtaan ci ak moom mu xam ne Colobane yelloo na am cette convention ñu fexe ba lijjanti ak moom waxtaan ak moom ba mu accepté financer Colobane ñu woo la maire pour mu defar euh, mu am signer une convention non seulement il a rejeté cette la signature de cette convention c'est-à-dire daf ko bañ ne du ko signer mais ba mu demee ba décider da koy signer da koo jël jox ko beneen doomu aadama bu nekk ca gox ba di responsable comme ñun pour mu dem wane di woote après ci dëkk bi ne moom moo lijjanti feeraay yooyu nañu bàyyi yooyu nañuy def dëgg di wax dëgg fii yàlla moo fi nekk te yàlla noppi na te ñun dañoo gëm yàlla wóolu ko lu man di xewit dañoo gëm yàlla wóolu kenn ku si nekk li nga xam li nga mën nañ ko utiliser te ñu permettre ñeneen ñi nga xam ne am nañ leneen xam nañ leneen ñu ñëw ci dëkk bi liggéey ndax yeneen i amaat jóoban ci dëkk bi bëgg a def ñeneen ñu am ay programme am ay projet bëgg a def waaye xajaluñ leen pour ñu dugg kon nañ ñu xajal ñin ñu dugg lii nag mbéjum kanam la borom moo koy fajal boppam waa Colobane ñoo mën a soppi seeni mbir ñooy dénkaane am dénkaane la te askan wi mooy dénk le soir du 23 janvier xippi leen seen bët xool ngeen xool ci ngeen dégg te ñun taxaw nañ incha allah pour soppi xarxanu Colobane ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm jërë ngeen jëf